combat bu dox si diggante Ama Baldé ak Modou Lo na doon combat bi nga xamante ni bu ñëpp di xaar la waaye nag kii di Ama Baldé moom di doomu Falaye Baldé nekk foofee ca Pikine moom Ama Baldé ca France moom nag génn na dafal waxtaan bu yaatu ak ñi nga xamante ni ñoo ŋànk làmb ji Ama Baldé moom rek ah génn rek naan ki nga xamante ni mooy mu koy avertir te nee na dara mënul tax ba du daan kii di Modou Lo moom nag waat marqué dara mënul ba duma daan ak Modou mu doon combat bi nga xamante ni combat bu nar a métti loolu lay doon si doomu Pikine bi Ama Baldé moom rek yemul foofu nee na yemul ay supporteram sax ba bëreeg Modou Lo Modou Lo di ko daan moom rek nee na mbër yi nga xamante ni ñoo nekkee ca kaw ca bopp ba amul kenn ku ko si mën a daan nee na Modou Lo mbër yi nga xamante ni moom la nar a bëreel mu nar a doon combat bu métti loolu waaye nag Ama Baldé moom yemul foofu nee na Modou Lo du ay wax moo koy daaneel faaw nga liggéey liggéey bu métti nee na nag moom yor na lépp luy qualité ay qualité wóorulu ko pour daan ki nga xamante ni mooy Modou Lo nee na bu soobee yàlla ak Serigne Touba dina am li nga xamante ni mooy ndam si combat boobee dox si diggante moom ak Modou Lo xamante ni le 25 décembre bii ñu dëgmal lañ koy amee Ama Baldé moom nag moom rek nee na li nga xamante ni moo laxasu si combat boobu dafa bari rawatina moom doomu Pikine la te ay Modou Lo dafa daan ki nga xamante ni mooy mbër bu mag jamono ji nekk foofee ca Pikine muy Eumeu seen nee na nag loolu bokk na si li laxasu si combat boobu ndaxte Pikine rek dafa am ñetti tanoor yoo xamante ni moom faaw faaw mu wone boppam te pour mu wone boppam rek dina daan kii di Modou Lo Ama génn rek di dëggalaat ni ay kàddoom barki Serigne Touba dara mënul tax ba du ma daan kii di Modou Lo dama koy daan nag avec la manière du ma ko daan ba war si kawam loolee ay kàddu yu Ama Baldé la di sell moom na kii di Modou Lo moom nag ab champion la te kenn mu naataablewul di champion pour nga daan ko rek faaw nga liggéey moom nag nee na liggéey na foofee ca France ca Bordeaux lu nga li nga xamante ni war naa mën a daan Modou Lo te nag mu ngi dëggalaat boppam rek ni ni carrément Modou Lo amul fu muy jaar ba Ama Baldé rek du ko daan moom Ama Baldé yamul foofu nee na Modou Lo li koy daan mu ngi kër ga ba léegi ñu ngeek moom waaye nag Modou Lo doon la mbër bi nga xamante ni kenn mënu koo teg pression ndaxte am na fit am na doole waaye rek le 25 décembre dinañ xam ni carrément Ama Baldé moom xale la te mën na bëri te am na doole nee na Modou Lo mii taxul muy bëree waaye nag waaye nag dina doon combat bi nga xamante ni dina rassuré képp kuy supporter nekk Pikine moo xam fépp foo mënti nekk ci bitim réew dina la kii di Modou Lo moom rek du am dara ci combat boobee nga xamante ni dañ koy naral tëggal le 25 décembre waaye nag combat boobu amoon na ay face à yi nga xamante ni dañ ko war a def waaye boobu ba léegi mujjul antu Ama Baldé mu ngi dalal xelu supporter rek nee na face à face boobu rek dina am ci diggante moom ak Modou Lo balaa ñoo jëm ci combat boobee nga xamante ni dafa war a am le 25 décembre te ren ci face à face boobu rek dina wane supporter rek kii taxukaa jóg dina daan Modou Lo ci barke